نصر من الله وفتح خريب وبسر المؤمنين برام نصر الله دين جاء إلا خمان نيلا كيروك نغا خمان تيني نيلا نسوبة لبستي ما نغي وخ حسن فال بي ني ديم مارشي باي وول بتو كو تاتا كو سانجا لا كو ني سوما نيهي ديم تندي تي بوما تندي داماي نيرو غير في ما تول ني تيمبي سوما نيهي لوما واي لا ديم ما باي taxul ñu téyé seen loxo dañoo continuer di ma jox ba démb ba 18 heures dañ may jox di dollee seerelaat mbooloo bi yépp rek ci seen kanam muy lépp loo xamante ni engagement la bu nu mës jël suñu diggante ak yow ñoo ngi koy fetli tey bàyyi gi ñu la bàyyeeg suñu bopp yëg nañ ko bu baax te wallaahi wal quraanul karim ndimbal li nga ñu ci dimbalee faw xana suñu jot barki Serigne Touba dëgg démb rek maa ngi koy wax ma ne yàlla dogal na amaan na daan naa tudd te ñama daan tudd daan naa téye liggéeyu sëriñ bi téye liggéeyu keneen di ca fortaatu dara lu may yaakaar ne bu musaana ñëw dinaa ko jëf jëf mu dal xel ba jàll waaye chance bi nga xamante ni moom la yàlla wërsëgal soxna si mooy que ne bi ma koy jot moom ci jëm boppam damaa bàyyi ñëpp téye sëriñ bi kenn waaye sëriñ bi ma lay wax ne lu ma musa dund ci sama àdduna man sama jëm bopp li may dund ci jamono bii ci laa gën a stable ci laa gën a flag sëriñ Tuubaa man dara pression dox ma ci te loolu yaa ma ko dimbalee weesoo gu ma fu may ngat ngatee waye wallahi wal qur'an al karim luma ma bëgg damay gëm ni su jotee rek dina ko am loolu nak ma jàpp ne man sama jëm bopp dara moy ma ko dul yow ma am rek yene ji nga may yene mi ngi may dal no ngi lay ñaanal yàlla nak bi nag suñu borom dool la samp te dëgëral la teel la sa kàttan bi teel la sa wér bi te dolli say xewal dolli sa baati ba lepp lu mouride yi yaakaar ci yow suñu borom bañ a tas yaakaar di la ñaan nga ñaanaloon ñu mouride yi sëriñ bi li ko commencé ci suñu wayjur ya soxna absan Ndiaye soxna Mariama Seck ba ci ki gën a ndaw ci daayira bi barke Cheikh Nal Khadim Mbacke kenn koo ci seen muy daw ci bis bi da ngay jàpp ni sëriñ bi la koy defal jëf jooju nag nekk loo xamante ni man sama jëm bopp ginnaaw bi dem naa ba benn jamono sax xaw na maa am lu ma def ngir pas-pas baa yéen a jën ci doon doxee te loolu lépp it nag dama leen koy wax rek du kenn du man lépp yow akan kon noo ngi lay ñaanal yàlla. nii borom doon la fee bàyyi. di la xamante ni daal bis bii lépp looñ ci yéene woon dal na bi lépp looñ ci diggoon it nag am nañ ko ba am ci lu kawee suñ jot. fii nga toogoon ni dama bëgg bu ngénte ba ci suba ga bu làmbee poosam daj ci dara billaay suñ bi ba tey suba maa ngi xëy di may waaye jeexal good doit amu bor diirub ma nak toppatoo nag ba ni muy jàllee musuma taxaw ci kenn ne ko alma kilo suukar bu subaa bu ma jotee nangam ñoo jox la daluma ci benn yoon lu mu ci doon mën na dëgmal ko war koo jëfandikoo balaa ma caa yegg suñu borom dina def suñuy poos loo xamante ni bu ñu yeggee bu ñu ko jotee laa dina mën a saafara wëlbati asana ngi ñoo ànd keroog bi ñuy dugg bi ñu ba ca marché ba du nit boutique leen lu ngeen bëgg ngeen jël ko bu ngeen ñu def facture ñoom ñoo xoolal seen bopp ba ne lii ñu am ni doy nañ sëkk loolu nag du man ngir man sama jëm bopp man xam naa ne ba may waaxuy dem man xam naa ki ma doon ba ma fa yeggee xam naa ne la ñu gàpp ma noppee du man maa ko saafara dellu di yeesalaat suñu njëbbal ci yow népp nuñ la bàyyee woon suñu bopp noo koy fedd li ko fukk doole ko joxaat fii lañ koy waxewaat fii sa soxla di taxaw fi suñu kanam bu kenn am soxla ci noonu soxla wuñ dara kenn yow rek lañ bëgg di la ñaan nga ñaanal ñu ba loolu ñu yéene ci suñu xol pas-pas biñ ci am suñu borom kàttanal ñu ba yàlla boo ñu soxlaa ci lenn kàttan nga di ko wute wala lenn noo lay ñaan nga téyal ñu wér gi li ma gëm moom mooy bu dee xel ne xol bi moom dara mun ko dëpp li ma ci gëm gëm naa ko pare te wér gi nak na nag su wae nee laaj waaye bi metti ko di def sa mom moom wàññiwu ma dara ndax japp na ni sa bu ma dara dé metti suma joggé suma sobo ci li nga bëgg yow sa jëmbok bala ma ca nopp wër kon ñong lay ñaan nga ñaanal ñu ñaanal mbolom yépp ba li nga sopp ci mbolom bëgg ko ci ñom suñu borom def ko ci ñom nun tam li ñu yaakaar ci yow suñu borom dimbali ñu ci bañ jot ci santaan ñëpp di gërëm ñëpp di wax ñëpp ni suñu xol sedd na doon leen di bayyi suñu bopp ak mbokki taalibe yépp nak man Ousmane de li ma gëm moy man outil la ci bir keur serif Assane ku japp ni outil bi mat la bo soxla mat jël nga koy wëri ñëwal jàpp Ousmane bo demee bo dajé sa ci ku bëgg serigne bi te téye ko daal jombalewu ma la sama bopp ki ma jaaxal nag ku dul dara serigne bi kon do ngi sant ñepp te gërëm ñëpp alaykum wa rahmatullah inni uhiisuha sahabika wa thuriyataha min aseytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طالبي بني جيتالي سانت يالا سون بروم تبارك وتعالى نين كو دان ديفه سما ñun ñep ñu ma الحمد لله على كل حال الحمد لله suma salaatu salaam ala seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa maa ngi leen di siyaara yéen ñëpp ci guddi tey gu barkeel gi di aljuma waxtu yi nangu ñaan la waxtu yi jaamu yàlla la di bëgg it fonk gi ñu fonk jataay yii ba fu mu jotee aljuma ci ngoon ku ne bàyyi la doon def ñu fab sunu temps bépp jox ko guddee aljuma ngir jëmm yàlla ak sëñ Tuubaa daje daje bu yiw bi jàng xas kati yi jàng xaside yi sëñ Tuubaa yi ñu diglu leen ñoom te sëñ Tuubaa di wax ni suñ borom na nga defal kiy jàng sama xasida gi ak ki koy diglu ñoom ñëpp yàlla nañu bànneexu ëllëg ca waaxoorul xini ca aljanna waxab li man yàqarawaa wax na ko ak ñi koy diglu te di ko bànneexoo ñepp da nga leen defal saxaadatu daare yi te xaadimul rasul mi wax wax ji digeentem ak boromam dara dafay doxut digeentem ak rasulaay dara doxu fi lu muy wax lu ne nun ndongo yi daa fekk lolu muy lu mu tek loxom ba nopi muy daare ni koku bim ko ba nopi ko ko tax mu bind ko bafi ne kuy jang sama xasida gi ku fekke fan koy jànge ak koy diglu ñoom ñëpp yàlla defal ma leen ñu sowe adduna sowe alaxira waxaguñu dara mu teg ci amin ya rabbal alamin kon jar na fekkee bi ci des it mooy ma bi nga xam ni ni ñu fonke jataay bi lañ fonke jëf ji bu jataay bi gaawee lool ngeen matal ko su xawee diibit bala ngeen a jox bu mat loolu ci Pastef la bokk fasu leen yéen mukk toog ba jóg te noppiwu leen ci matalu leen ko ak lu coono bari bari bari bari yaa ngi koy waxtaan ak sëñ Matar léegi ak El Hadj Ngoudé bi ñu ñëw léegi fekk na sama yaram sonn ñu toog xaar ba ma génn ba ma ne dangay yeble ma ne ko ëpp naa def damay dem teew ndaje mi suma mané fop bant bi so ak mom sax damay ñew wax naa ko fi kéro dafa am yu tax dama waxon ni bu ndon wañi ko ñibi may may may jëkk a dugg fi dëkk kon luma ma yaafus yaafus war na maa teg sama bëtt ñi ma gëna sori fii na am na ñuy am ñoo xamni ci bir Cees dañuy gën quartier biñ ne te amaana ñoo ñuy jëkk a ñëw te ñoo ñuy mujj a egg ñoo ñekkat ku leen teg bët di nga góorgóorlu te xool koy dox baax na ndax day tax a dox moo tax xool ci gi dox nga teg ko bët dana tax a sori dana tax a raw ki doxut te bala ngaa xam ne dox di jariñ nga dox ba noppi boo doxee diir bee fa nga jëm ca ngay xam ne toog amul njariñ loolay di wér kon ma ngi rafetlu bu baakha baakha baakha a baax si seen jataay ak seen jëf aljuma ju ne ci aljuma yi ku bes ko xam nekul sax senegal sop doxin wi ginaaw bu ko télé bi génné da wax ni duggal leen ma ci sama adiya ngi ngir jëm yalla wax wax nga deug bay cheikh Sénégal Ousmane mi génn légui tey lañ mus a gise dama ko laajee kay nga mos a gis ñu bi dañ tey waaye at a maa ngi koy topp bërki démb la woote Touba mook seena Omar Fall moom mu àndal dina ma dégg nii ndax mi ci groupe bi tey dugg na ci ma wuyu ba ma wuyoo ci saa si def na benn réaction maanaam aal ni Omar sant naa la ndax gëw mën woon kii dinaa ko jot mm-hmm. ay atangi ni mu muy muy wax ay wax ma di ko ni ma bala maa wax de dama la amel luma la waran wéxal mané ko la mun ma bi kuyit bi da nga joxé won ñaari rakka ma ngi leen koy joxat yeen muy bi ngay jang Fatiha ak ñeen fukki fàllaxe ak ben. ak julli la deuxième rak nga defaat faatee def ñeen fukki naasi ak benn faatee 41 falaxe faatee 41 naasi moom mii moo moo moo wax loolu tey loolu defoon nañ ko yàgg na at yee soo noppee ba toog nga jàngat faatee bi juróom-ñaar def 18 falax 18 18 naasi ma ne waa mun ma sëñ bi ba sama doom kowitee ne fañ nekk fees ku ne ñu hospitalisé sa kër ñëpp tiit bi ma sama soxna wax dama ko ne baal ma def lii sëñ bi waxoon def ko ci kaas jox leen nu naan nee na ma sa kër ba ñëpp wér ña nga xamante ni naan nañ ko dara jotu leen mu ne ma man safala xeeg naasi boo nga waxoon ca laa sama njaboot moo ko wax am na ci keneen koo xam ni mom dañ ne luma ma daan def sama lan la ko daan defee jigen la dañu tuddu turu ndax yi ñu waxee ni waaye soko ko déggee dana ko xam ndax mo ci Canada nena ma wo sama dom ni ko ma dom mo ñew fekk ko ne ci lal bi di japp ni ñu japp ci tanki mu nat mu ne ko fexeel ba jox ma kurus mu jox ne ma ma tàllal loxo fi tàllal loxo fi nekk ci ba mu mat ma ëf ko ci saab di naan rek mu ne ma waaye doom ma ne mu ne maa ngi nii toog waaw ah, nee dama dama daloon wér na fi la jële juma bi noppee ñu ko mu dugg ci yëf yi foofu addi yu bari dama fi bàyyi léegi dem ne ma eggee Dakar nag la ma la yéene dinaa ko andi ko dama la won set si kat jotaay bi ci lañ ko jëlé da ngeen ko fonku ci képp ko am aaju kum doon ci yeen gis nga gis nga gis nga señ mo ña ca ña ca ña ca bu ñu xaar ñu tabbi ci tien bi ñun ñi ne ci pind bi ñu tok di xol barke na wax fi ci allahumma lakal hamdu kama yanbaxi li jalaali wa li azami ma wax leen la du la jëlal temps bu bari te du la coûter dépense bu bari te dana yëkkati nit ci àdduna ba tàbbal ko àjjana benn soxna ne ci Italie ne ma dama koo liggéey mu neex ma dolliwaat ko ma ci guddi gi gént dem àjjana bokk ci bokk ci waa orul hindi moom soxna si vocal baa ngi man moo ko yëg mu ne waaye man li ma jaaxal mooy damaa xamul waa àjjana nu mel waaye man dama yëg saa bopp damaa gën a gudd ba noppi gën a rëy ba noppi gën a xees nee bi ma nee tëll ki ma yàlla boole woon daa yow sama borom kër ni ma kii di yokk loolu la ma wax ci wokkaal mu ne waaye dama tiit ndax bi damaa xamul lool damay bëgg a dem foofu am déet <laughs> loolu la yàlla wax suñ nee na yéen soxna yi bu ngeen tegoo ci yoon soxna ma yàlla ne ina an na an saxa dama leen di tëggaat tëggaat def naa moom ngeen di tuddee xaw ma ina an sax noxu na an saxa suñ borom damay tëggaat soxna yi an beneen façon gu tëggin bu bees yàlla ne fa jaxal naxu na ab kaara soxna ma mii yàlla du ko tàbbal ajan nii li mel nii yàlla rus na ko fa jaxal na hun ab kara ab jànq lay tàbbee àjjana fii ne buy dem àjjana moo xam ne fukkat ak ñeent lay doon laa la wax de te yàlla jomb na koo taabal àjjana mu gàtte nii mu gàtte du ko def da koy yuqi imam ñaata meetar lañuy doon mu ñuy tàbbee àjjana soixante yaakaar naa ko naa takku de waaw su boobaa soxna Mari mooy sut mbar mi ba noppi nag mbag yi dina fi gën a yaatu maa la wax lii doxin yu jekk nag lay am bu boobaa ma bàyyi ngeen ko xel yàlla xam na ko ni fii nii ni ngeen mel nii yàlla tam maanaam jomb la leen tabal àjjana nii ah ak seen xar kanam yi ni mu bindoo déedéet yii kenn du ko yóbbu àjjana fa jaxal na huna ab kaara yàlla nee na soxna yi na seen xel dal ci man andi ma leen àjjana ngeen sonal ba ba noppi ma leen tàbbi àjjana ngeen melaat nii maa ngi wax benn affaire te danaa koy seetlu xaw ma nag yéen ngeen ko seetlu mu déet jigéen juy waaj sëyi wala bu amee tu tànk bay waaj dugg ci bisam lu ñaaw ñaaw ñaaw lu ñuul ñuul ñuul mu ci eggee dinaa gis ñu jang-jangee ko yóbbu ko ci benn barab seetlu leen loolu hmm? day am ndokk yee koy dar yenu ko dugal ko ci ah, ci ci benn benn benn benn barab hmm? waaye suñ ko soppee ba génn ko hmm? su génnee yow mi ko moomoon boo góorgóorluwul da nga naan ndax bii mooy saa bés loolu gis naa ko fii dal na Ousmane mi wa yakarna naa waaw yeen aduna bu ngeen mané loolu motax borom bi lu la wax bala nga fi nek di sikki sak yow seetal yow rek ba xam hein seet bo ko si àdduna bi su mo dak dàq bu mu seetoogul bu ceet ko waa see dina melaat te loolu njëriñ ko ni def dañ koy wat TPM ya, ya nga xamni ne kenn xamul lu muy nuroon xoos fi rëdd fi ay xef sax gis naa ñu ko ca boole ngir bëgg bisu tey mu wuteeg bu démbam te ñooñu waa àdduna koy def yàlla ni banu leen man maa man man inaan sax noonu an saaxa borom bi nee na man duma def loo xam ne boo léegee ñu ne dina la meloon démb àjjana bis bu yàlla sàkk taram day yok amul kuy mel ni nga meloon tay suba du gor du jigen chaque jour nga andi abiyaas bu bes suñ borom koko man waaye bi ci gëna a moy lo bari bari njabot dogo ñu sur bi mu invité ab jànk ngay doon xol nga lolou te bu dee àdduna loo fi xës rëcc li jeexal nga ko la nga ñàkk ngay dugale bàmmeel àdduna boo xasee ñëw langa nga ñàkk danga koy ëndaale yàlla mënu ko laaj ko laaj ko laaj ko borom jiw yi rek ñàkkut ñun ñi ku ci xam grain bi ñuy ji moo bu la neexee def ko gerte wala nga def ko sëb wala nga def ko dugub bi jikat bi gàddu yóbbu ca tool ya ko yóbbu jiw wasulul mbubb ah amul dara lu ko wodd saxul dara boole ca noonu nga ko suuree mu ne fànn nag noonu ak yaramu neenam nga wan ko ginnaaw ñibbi jàpp jàpp naa ne ñun ñi ko ne def na ko ah fo gerte bu nu bàcc daaw moo koŋ mba së waa mbala dugub yuy bojju daaw mba sëb bu bojju daaw mu doon kemb kese bu ni fundum dara ko waaw nga wàq bu mu xuut ci suuf soow suul ko ca jox ko ginnaaw dem sa kër jombul ñun ñëpp gis nañ ko sëñ borom ni la ma maa aay cib niiw demal rek te bàyyi ma moom borom bi tabaaraka wa taala lu tax diir bu gàtt mu wutu la ginnaaw nga ñu fekk fa mu tëdd mu jibbi jëm kaw soo doxee diir dana ca boole xob bu dee gerte akum ngooñam bu dee dugub mu def ca ab gitax doo caa defam pepp bu dee mboq mu def ca lu ko wër am déet boolewaat nag gerte ak it ngooñam ak i xottam ak i bagaasam te yow ba ka nga fa suuloon xam nga ni du kii du yem ci jox la gerte képp de benn nga fa defoon mu baril ko mu ëpp fukk mi xatu xabbatin laal xoolan wax lu mu niiw niiw niiw gub bi def juróom junni maanaam téeméeri pepp lu mu niiw niiw waxin la ci noonu waaye da ko ëpp kon suñ moom dawee woon ni la néew bi nga ma andiloon ginnaaw maa ko mën a def nii asa yow mi may jaamu boo ñëwaat ëllëg moo tax bu la waxee ni naan sax na wax ansaha saha fa jaxal na hun ab kaara li ci yéeme mooy ma def la xuruban sëñ bi ma noppi def la atraban loolu dafa dafa kéemaane xam nga fii ñun produit yi cosméticiens yi di yor ku ak bi nga ciy diwoo nag am na fi jaaykatu saabu bu ne fii day mélangé mélangé lu ne mu tay la ko bala ngaa jot temps bi nga bëgg tempi tampa bu ne di ko am boo ci génnee waxati ko yàlla ni du ma doxee noonu man xuruban atraban laay defal temps boo xam ni sëñ Mor warun la dallaa yatraabun muxaddaratun mhm. تاتا الخباب منا بوسا سليماتي أرن لدلاي أتراب مخدرة تاتا الخباب منا بوسا سليماتي سخن الخناديل نورا تبوا أبخن يخجل بدر يد فوق سماواتي لو نجس من رتب قابس قدر لو ترى الجاي للدجنات يال نيو ام تي نيونو نور لدى الله يال نيو ام تي نيونو نور هين يوي مو يخ نونو nga xam ni seen teen yi moo gën a te teint yi dafay briller lisse gis nga waxtu woo dawtalee seeram ci ñu Mohamed da fàtte loo doon def àdduna ak koo nekkaloon àdduna bu dee yaram bu liis tanooy rek nga bëgg gaa yaa ngoo foog nal xanaati la nooranti bu haabixul mhm. yuxjil na badri yadin fawqa samaawaat xaadim nee na sëñ mii dani ñun waa àdduna dañoo sonn dangay gis koo xam ne njàmpe réewut gu dëgër nekk ca yaram way bomb di bomb di bomb te bu noppee kat du na meloon dong lay mel dem sa armoire di lëñ boo génn nii bii ma bii de jàpp ma bii soloon naa ko démb doo ceeb boo noppee yaa ngi seet parfum ngir bëgg a mën a jaxasoog nit ñi rek ngir am nget gu neex borom bi ni man loolu fekkuma ci gis nga ñoom seen odeur parfum bi naturellement maanaam ci seen jëmm la ne yow yaay xeeñ lu neex li yow yaa koy xeeñ du parfum bee la ko xeeñal xam nga ñoom parfum ñu xeeñal boo tàggoog moom tàggoog moom kii nag moom parfum bi xeeñu ko moom moo xeeñ neex tiibun la أرن الدلايا تراب مخدرة تتر خباب من أبوسا سلمات فخنا الخنادل نور كبوا أبخ يخجلنا بدر يد فوق السماوات والله يخنا دق seen lex yi ñoom Mohamed teg si sa tuñ jar na bañ ko teg kenn ci àdduna ba faatu waaw jigéen àjjana te mooy ñii buñ góorgóorlu yàlla defal lex yi gisoo Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ko sëñ tuwaay tagg te demagum na alaxira dafa xam kaana ma asahabin fil xaddi lexu yonent kaana ma asabi fi xaddi muasabi wa kaana sibtal xasabi irni noo soo sama mi يعني تبي سالس بعدين موسى دفني مفكس له يوفون قصق نخلي رأيك أنا وعلو وخبكر إنك ويا محمد بوم نني يوم يوم ولا خبي ده كان أيون تبي لخم بال إسكن إسكن ورس لين كديو ده ملخ في خدي المعسبي وكان سد القصبي moom la lay wax ne la ayir nu nuuxoo sa sàmm mi ku ci mel ni man day nuux nun te mu ci tus nag gis koo xam ne même bu ko taxawlee paxi bakke nee na mu war a royee du ko day xat ñun ñëpp xam na ni nit mënta ñàkk bu ko nag lu ngeen dégg boobu baat mais boo nee bu buddu ko nag nangam amu fa xër noonu xoo soo sàmm mi batterie bi bi mu tàmbalee jëm émission danaa teem mu taxaw mel. moom it bu la bu la kaamilu zinaata mu tay joo wal ba jumaay lu xumami jigéen ajjana boo soxlaa bakkan ba day yomb jot dafa am nu koy bindee mu génn fabes day génn boobu ngeen koy tegale fa tabaarakallaahu te dee ku ne ku ne ci ñoom dafa am sàkkale yàlla waaw jigéen jigéen àjjana ñëpp am sàkkale yàlla bu dee ci nun fii da ngay dem ci dentiste mu day xoos ak xoos te du tax du am bëgg ba wutal ko am bu dee jërul loolu fi ne lu parce que sallallahu alayhi wasallam da ko dañ ko recopier andi ko pour wonu image bi yonent bi ni mu rafeté ni ban diko yim rafeté gut bu ne na lay doga rafet parce que rafet bi mu rafet ci aduna ñoo ñun suñu rafetaay la mom bu way su benen rafetay lañ koy jox fini beuti wa aljana la ca wara ñuul da ñuul ba boko xolé xam da ñuul wala war a weex daa weex tàll boo xool daa xam daa weex ñun nag ñaare léeg-léeg borom bët per bu ñuul ba ne bëtu ba xongu cur ah yaa ko tudd de dama daa màgget xaw ma booy gaa jana du mel daa ñaaw bët day weex tàll per ba ñuul kukk borom bi nee na waa àjjana noonu lay mel kon ki mën a yi ni def ko ñi mu ko def ba pare won la ko ci àdduna ci aw jiw wu mën a doon nag wax ba nga koy suuli moom képp fan na nga yóbbu mu dekkal la ko defal la ko noona su la ni la bu ma dajee yow ëllëg war nga koo gëm am déet noonu noonu noonu la suñu borom di fa lay mujjee ak yéen moo tax loo ko songal ci àdduna jar na ko amar sulaiman loolu wax téere bi mu jàng loolu wax am na ñoo xam bis bo rek lañuy xaar foofee la abiyas amé fofu la makiyas xewé makiyas du bi ñu lay rëddal fé kenn ku ne sa bëtt na mu ron ak kawr bëtt ba ñu ñu ba ne sa naturellement non lay mel waaw non lay mel. te te te gis nga àdduna loo fi bëgg lu mu rëy rëy dana da nga xëy bis bañ ko nobel yëpp ay ruus taar yëpp ay màgg mooy ñaaw kàttan yëpp ay jeex àddana àjjana kàttan dafa jeex dafay yokkoo nobel dafay yokkoo mbëggeel dafay yokkoo ndax foofu la xewe foofu la xewe xam nga téere bu ñuy wax alxuraan du dégg nga tur wala nga xam ko na 610 la la la la xewoon ba léegi fii ni boo ko toppatoo ñu ngi ci 1900 2023 610 ak léegi ñaata. waa léegi si bu dul bu ko defoon bu mu ci mën a doon fi ne bu amee bu amee un an deux cent gars yi fàtte ko lu tax alxuraan sàppeegut fañ ko keree tax du sàppi noonu la yéemel yëfi yàlla gis nga meññetum àdduna loo ko gën a songu njaal bi gi jigéen la mujj ga day gën a sori jëlal garab gu la neex fu ne soo tàmbaloon wett ca suuf ga bo léegi suuf gi day jeex da ngay da ngay yok sa loxo tuuti boo léegi nga yok bu yegg nga nek sawaay tee nga yik meñatu aljana mom day gën di jege meñatu aduna day gën di sori am nit loolu mooy la fa ne pour nga xam aljana fofa jara liggéeyal fofa jara wut moo tax lu ngeen ci sonn jar na ko fexe ba tënk ci sa bopp na looloo jafe waaye ñaan yàlla mu tënk la ci ndaje yii ngeen di def nga xam ne loo passé ci temps bi jar na ko ndax ci yàlla nga ko passé te amaana bu dul temps bi nga jox yàlla nga ko jox ko leneen kon jar na ko te ànd ba ànd jeex ànd ngir yàlla di cee gën xam nga ànd ànd bu ne mujjam mbir la dafa am benn aaya dafa suñu xarit al axilaahu waaw wax kay wax ngoog aaya jii aaya jii suñu xarit wax ci xarit ay xarit bii wàcc dafa am ñaari xarit ñaari gaay yoo xam ne ku ne nga am sa xaritu bopp kii daa baax lool lool lool lool am waayam ju baax joo xam ne ñooy ànd dem daayira ñooy ànd dem ci jàkka yi ñooy ànd di def lépp lu baax kii am beneen copain boo xam ni lu muy def ci caay-caay ñoo koy ànd noonu wax benn moment suñ borom ñent gaay yalla fat ñaar ña ñaar ñu bax ñu yalla ray kenn ki ñaar ñu bon ñu ray kenn ki ku ne mu tabal la bar bi nga war ki bax ki ajana ku bon ki sawar ku baax ki bi mu tabbe aljana boromam ya xiiwal yu bar yam fa fek tiraa nga ja jambu ji mu jek jek beug mu sante borom tabaraka taala aaya ji Sëñ Xaadim jàng bi mu santee ba nag mu ne ci yàlla sama sama xarit ba ma daan àndal ci àdduna nga xam ne su ma daan dem àjjuma ñooy ànd su may dem daayira ñooy ànd ma jëkk ku ci teraanga ji yàlla maa ngi lay ñaan waa jooju te fi mu tegoon tànkam yàlla bu mu ko teggi ndax sama xarit la na gudd fan gën jëf-jëf ju baax ndax li ma gis bu ñëwee am lu ko lu ko raw bu mu tegg tànk mukk fa mu nekkoon ànd ak yow ak jëfal rek am solo ku baax kee ñaan loolu bi mu ñaanee ba sottal suñ borom ubbi digganteem ak saay-saay bi mu ne yàlla sama waaja ma nekkalul àdduna nga xam ne samedi soir ñoo daan génnandu baar yi ñoo fa daan daje feccukaat yi ñu feccukaat yi ñoo fa daan ànd bu ñu daan foy ñooy ànd ba nga jiital ma ma moom mu des fa yàlla bu mu wàññiku man nu ànd ma ak moom di def musiba mu musiba dal ma moom mu génn ci dem àjjira ma toog di tucc loolu sama musiba la na continuer yàlla maa ngi la koy ñaan boo leggee li ma mus ma mus ko moom tamit al axilaahu yow ma isin waa kay moo tax moo tax boo xasee bay ànd seetal ku baax nga ànd ak moom waaw ndax bu la jiitoo àdduna alaxira du bëgg nga mucc ndax lu dugg yaa ko ci dugal xam ne bari na sa saa dem barab sàngam joo xam ne doo ma ko ba nopp ma dem sawara nga des fi dugal ma ma dem sawara nga tuub ginnaaw bi yàlla jéggal xarit bi nee na yàlla bu feemee waa ji bu mu hmm, bu soxlaa mooy dolli ko tamay ko guur na kun de cakaay ba faatu jot bu fekk fi ma ne ndax ñoo doon ànd moo tax booy ànd seetal ko àndal mooy lam solo moo tax nii ngeen àndee man mu neex ma ndax lii daa neexalaay yi bu ñu suñ tuwaay di wax ne waccal xuloo bana ala tawadudi wajal qulubana la tawaddudi bila tanasuin wala tasudi yalla sama khuli talibi na nga len deppele nu and ba fek si fi buñu bu dara ta buñu bañante atana nasira muslimin khasin wa mu'minin mukhlisin saaliin nan ci sax hatta nasira muslimin khasin ba ni ngeen ne nga xam ku bok ci mbolam bo amé ewet ma ngeen jappale ko dimbali ko neena bu len bayyi lolou atam la sama sunna khasin kon yene nga ci yoon kan wi de dimbalante gi l'islam da ko diglé te gis nga dañoo fee la force mbolo mooy dole Ousmane mi xam nako ndax dembu ci gin kenn la dong rong la mom waye timir témir ngeen ko téwal témir yoy ku ne di témir lol dara la de Mamet bu ñuy wut gaa yi wut alal kese yow wutal nit ndax soo wutee alal boo amee téeméer téeméer dong nga am waaye soo amee téeméeri nit di nga am téeméeri nit bu téeméeri nit ku ne amee téeméer bu ku ne ñëwee téeméer ku ne téeméer dara la de nga boole téeméeri nit ak téeméeri ak seen téeméeri téeméer du ngeen wét mukk yéen a yay xam nga kan mooy sama problème te te te c'est problème nag ndax ndax ndax sëñ bi damaa jébblu ci yow sëñ Asan ni ne mbooloo mi ànd te yow bokkoo ci waaw bis bi bu su jotee waaw nu sëñ bi def xam nga dama gurgur gaay waaw damay seet man xaarim kan rek ne ko dama tudd la ma doom jote ñëw wala imam mi moo tax bu ngeen àndee damay noppal ndax balaa sëñ bi joxe ordre day fekk ñëpp sawar ca maa ngi wax asan mii biig lañ ma waxtaan maa yow ba may tudd mag ñi bokk ci mbooloo mi te te te te sori mbaa amatuñu ay tuut tànk mbaa dencatunu wala denc ñu leen biir maa ngi koy mu ne ko ni ko foog ñu xalaat ci ñoom ku leen set fu jamono yaatoo ngeen fexe ba ni ngeen defaloon Ousmane defal ko Baye Mor ngeen fekk kenn ci ñooñu nuyu ji ko maa koy wax bi nga bàyyi ca waaw waxtaan ngeen ndax man bu ma wéetee rek fi ne xam naa ni ngeen di wéetee di xalaat sëñ Asan fi ne bu fi ne bu wéetee moom képp noonu laa leen di xalaate waaw noonu la leen di xalaate bii nu ngi koy waxtaan maag moom mi bay tudd Baye Cheikh mi ak ñoom tànta ak ñoom bàjjana yu kenn xamul loolu lu neex sëñ Assane démb bi may nekk Touba ngeen di waxtaan ojo bu daanu Assane duwal na ko maa koy jëkk a liir ñëpp waaw bi ma ñëwee rek laa ko naa waxtaan yi yëpp neex na waaye ñaar képp laa ci corrigé ñaari baat moo tax bu ngeen di waxtaan rek boole leen ma ci ndax ci diglukat yi laa bokk. ci laa bokk hmm? ok ak fu ngeen ko mën a waxee nag muy daayira siyaare beeg groupe bi bu kokki beeg bu Espagne yépp lay diglu ndax dafa maa ñor fi ne ku ci fote rek di xam naa ko bu jubee te neex a diggit ma tiitaroo ko loolu mooy li fi da ngeen di dangeen ngeen di samay donk may seen picc picc ak duxee ñooy ànd kon nañ ko xamee noonu te àndandoo ko ñëpp góorgóorlu ci lii bu ko defee gis waaj waaj ji waa ji kat waa ji dafa wax ni yàlla sax koo ji ko wax kullu kullu hizbin bimaa ladayhim farihun yàlla ko wax dafa wax ni kuréel bu ne wala mbooloo mu ne am nañ seen suuru férié bu dee la waye bo guéné peuple def ko ci dëkk dëkk bu né am nak magal ni mbaa amé waye bo démé ci kër borom kër bu né am na bis kat bu mom lay jël bis sa bis bis ci jambour du bis non taasukat da ko addé fé waye yalla ko wax bis bis sa bisa xaw ah non non non la way way kat bu way waye yalla mako wax ci alhamdulilah alxar kullu isbin mala day him farion comme kenn du ko ñak di nga am bisu mbik moo xam tudd la moo xam takk la wala yàlla soppi ko safaan ba danga ne soxna Bintu Njaay mais xam na ni ginnaaw taxaw nañ ko kenn du ko ñàkk ci ñun lii alaaji mii jublu ku ñaan yàlla gul fan ñaan nga ko ku ko defagul ñaan nga yàlla denc takk wala tudd wala bis boobu ma la wax rek waaw mu jot nga fab say loxo acc ca kaw nag naan gars yi dañu maa xeeb moo tax kenn loolu ëpp naa def na ko ne bàyyi xel ni bu nu yàlla boolee yilif ba noppi nu gëm na suwaay suñ tuwaa nag ay nawle lanu te nit daa war a fokk nawlem nag hmm? mooy tax mooy tax mbirum dox xam nga xëy xëy ni imaam demal miraasel li ma diw ndax bokk yaa ngi lay xaar mu bay yittim yëpp yendu àll ngir lan daa bokk ci daara ji mbaam bokk ci siñ bi te bu noppee du ngeen ko fay dara te keneen koo woo ku dul moom xamoon añu miras daa am daa am waaw loolu loolu sëñ bi faatu képp ñu defaral sa ginnaaw jar na lu ne xamuloon ku dee weeru yàlla nga ñàkk nag ku mat ku la taxawu musuma am bis jot nga ni nga bis bi ka tey laa waroon tudd waaye dama koy bëtt bis sàngam ñu tànn kenn ci man ni ko demal tuddal kooku maanaam yow rafle woo ab tuddkat rafle woo ab takkat rafle woo ab miraaskat maanaam lu mu am nga koo xam ne bu jotee loolu du sa problème jar na ànd ah jar na ànd kon nag na ñëpp góor góorlu jaxasoo bokk ndey bokk bàyyi muy ko góor ki muy ko jigéen ki day tax boo ëllëgee signalé yoo ko mos wax ni nii ma leen teg ngeen ci jàppe te bàyyiwul leen duñ leen àtte ci penc mi te bu leen àttewul ci penc mi duñ leen àtte àtte pencum yàlla signalé yoo ko waxoon njabootam ca mbaale nii ma leen teg yoon wii su ci jàppee penc mii la duñ leen fi àtte te bu leen àttewul ci penc mi duñ leen àtte mukk pencum yàlla sallallahu alayhi wa bi mu demee ba suñ borom dimbulee ko mu am ko nga xam ni ñi mu àndal ñoom der wahamahum baynahum ñëpp a soppante waaye dañuy dañuy fi ne mën na maa dem ndax sama wakkar yëpp benn nañu waaye ku ko bëggul sa mbooloo rek amagoo dara kon nag nu jaxasoo tey jëflante ngir jëmbi suñu borom bunt bii penc mu ngeen ne ba jóge fu keroog bokki bàyyi moor yëpp commencé ni seen boole bi des def bokku ci démb waxees na leen ko sëñ Baara Seck nga xamul noo ko waxee noonu Sidi Baara Seck xamul. wax cosaan waaw wax na la loolu démb maa fi ne fi ne lu baax la koo gis bëgg caa bokk mais li ci gën a am important moo yiwaay bi te maa ngi ci gën a insisté taalibi sëñ Assane wala njabootam. foo dajeeg moom na nga xam ne nit nga dajeel fonkal sa ndax lu yàlla fonk ba pare dénk la ko boo ko doy day daje sa borom te yàlla nee na wala xat karam naa bani aadama moor karkaasug doomu aadama avant julit avant chrétien maanaam doomu aadama gi la yàlla nii lii dafa maa neex yàlla mi ko créé moo ni doomu aadama dafa maa neex te dama ko dama ko teral تراغ جلي على فعل المطخ وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ما تحسن سي خاري بنيكو نيتي هم يينك سي سي اي بوب هم جوني جاتا لا جاتا كو كين مون كو نياك كوكو ام سانت كو نياك ووتيكو ولا دوج واخ ولا خات كرمنا بني ادم waxamal naa hum ju jëkk jàngoo fil barri wal baxari te li ci géej gi ëpp la doole géej xuus loo xóot lool ba mënoo caa egg ñam wa ci biir fa ne mënoo mënoo caa joti waaye fonk gu la yàlla fonk moo tax wutal la bant boo tegal la ci ne demal jëli jën ma ci biir géej bu doon yaa moom dong doo ko jariñoo doomu aadama fi mu ne ci jéeri ak fa jën nekk ci géej gi bu fekkoon xumi suñu borom ji nekku ci loo ko jariñoo mukk ah war a saq na xu mi na tayibaat li ne ci àdduna bi lu fi neex lu ne wala mu jekk yow dama adama jëlal parce que dama laa fonk nga jël ko ba nag mu ne li ma bind bari na waaye wa faddalnaahum ala kasir mboolem malaaka mboolem jinne mboolem bayima ak lu mu a doon yow nit yaa ma ci gënal loo defal yàlla ba gënal ko ci lu mu bind lu fi neex lu ne mu jox la ah nga am responsabilité am rew ni mu tollu kenn nit ni maa ko té te nga man nako wess lu tax ngay depp lolu tamul amul lolu fas mi ngay war mo lepp lolu tamul lolu xar mi ngay jariñu amuko te yéen ay ru do ngeen yor di mindef yàlla dajale yépp xep lu ko ngir fonku la lu nga ngay ngay sàggane sa bop ma xam nga ni nit dina fonku jaamu yalla ba faatu yalla lakko parce que deram bi non la foye non la foye fini fini fini fini fini bop fi koy defar chaque jour ngeen gis ma ma ma ma xuloo ci barke dem fi serif mi gis nako amna amna talib mu nuyu ci ci sama sama kaw dama ko ni bala nga ma nuyu demal peñew ci dama ngay ko wax xam nga xam nga xam ni seigne maragne ci yalla gudu fan waaye bëgg boobu seen bop yi te diko defar. man suñu asan laa tudd bu leen neexee ma sumi saa mbaax na ngeen xool am joru ko comprendre ngeen ni ma mel waaye defaral ba mu jekk mbaa nga wat gi nga sama wey loxo yi day dagg ba mu liis ndax àjjana laa jëm ah di rafet teg ci sa kaw bul fàtte pat dentifrice wala socc ci affaire bi la bokk boo amee parfum day ko xeeñoo ndax teraanga la yàlla la ko jox da ngaa fàttali yi bu ñu dem àllaaxira nii def néew yi xam nga jeexal nañu fi waaye foog ñu foog ñu abiyee te jeexal nañu fi pourtant fii nii néew xamul perkaal nag yow mi ko sang yaa sonn waaye xamu de boo koy xot du ko yëg boo koy laxas du ko yëg. nga noppi fu ne nga puuf puuf palaj palaj ko wax na maanaam ñoom bu ñu mu noppi da nga naan kii xanaa ki ñuy sang ki ñuy pomp palaj palaj gaa ngi koy yëg pourquoi ça loolu yow ngay dund ci àdduna ba noppi bañ ko te nii sax soxla ko nit day bëgg boppam defe naa xaakam la tuddoon tab boobu noonu tamaye woon jàmbaak fas waaw ko moom la tuddoon fi ne du julit waaye mu nga àjjana pour lan dafa yiw te tabe moo tax nu wax nii imaam bu yiwa ji ba noppi baadoo la boo léegi dañuy renverser affaire yi du dem àjjana imaam te moo la jiite gaa yi yéefar bu tabe te yiw yàlla du lakk lu yéeme na kon na fonk leen seen bopp yi ku ci nekk dafa am part de responsabilité ci li la yàlla dénk man sama kenn bu mal ne xarum cuxur bu la neexee nag tudd sañ nekk ci gannaaw làng waaye amoo ci ndigal de dama leen wax ni ku mën ku ma a doon ci pareel ba su ma doon tukki bu ma yemee ci yow du ma wut ku ma àndal yow laay daal cëf rek ñu ànd dem waye nak amna farata ju tol ni laj ko bay cheikh mi waaj na yon muni muni mi jëm sama kanam du nuroog malaka muy jóg do ko ñew yow lo xew mu na dem man ko mukk yow kay do du sama oto dama nga farata bop mo gën bi wa bu eggee fen manam manam ma tok ne demal doxal ma nangam yow di nga wacc men du kenn xam ah defaral len sen bop te fonk ko te ñime jaamu yàlla seen borom te ñimet kurus kenn mën leen a tee tàbbi te kenn mën leen a ci àdduna waaye am na ñoo xam ne man duma leen yooni fenn xalaatuma ko xalaatuma ko da dangay da ngay waaja sa bopp rek boo demee ba waaj sa bopp ba noppi ma xam ne yow mii moom mën ngaa jël responsabilité ma yabal la foofu la affaire bi nekk boo nee sëñ bi nee ñu gëm ko am ko sëñ bi dañ ko xoolaat ne ko ndax sëñ bee wax loolu mën naa njàkk waaw te ku nekk ci yéen danga ma maa représenté ci sa jëm waxoon naa ko yiw rek hmm? loolu laa wax waaw da ko daan wax ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm góor gi Assane Seck mu sa forom moo ko daan wax hmm? noonee laa ko soxla dee leen defar seen jëmm yi te gis nga fi mu ne référence référence noonu war nañ ko am nag boo demee ci Sëñ Tuubaa day wax ci sifaatu saadixal murit la fa naa nasam tuha arbaatun xaw faxtiraar du loolu la wax bu ci jëkk lan ban baat la waa kay asirtu fi mahabbati sayx bu bu jëloon boobu rek doy na dëggu gi nga dëggu ci bëgg sa sëriñ taalibe dafa war a bëgg sëriñam bëgg yooyu sëñ boo ko bëggut bàyyil boo ko fawut bàyyil da ko war a sopp mu neex la ba su amee ses feeling caaj nga jël ko loolu mooy mbëggeel sëñ Tuubaa ko wax de as fi mahabba boko ko manam ni mi def da lay neex da ngay eh, bëgg melni mom waye bo né mom la bëgg ba noppi ni ko fi ñuk dem jëri référence li nga wax du dëgg xam nga biñuy tambuli fi def tarbiyé bi ma ngi fatlé fàttali boobu daan daan dugg xalwa lu bari ba xalwa yi xawma la ci ci loos ni ba légui sax bayiwuma mu ngoog fu mo mu santoo may def ni gaa def ni ak wilaya la ñepp jël ko na xamni li ba jog na man len dug wilaya damay bëgg dé dama fébar sama loos yi mooy métti ah ndax da nga wax yow señ bi dañuy def ci loos wé dis xamna limuy gis fekk déedéet ci dit yi <laughs> dama ko muy téré ñom bay dem ba ñoom koo fekk mu dëngalu loos di aj di aj man len nan teel a waxtaan maa ngi yéen. dajee laaj léegi mu bàyyi dem. te loolu feebar la woon dug wilaaye loolu moo defi ne waaw ku mën a roy roy loo suy métti borom di dëngulu waaw li ci ko ko moo tax moo tax yii yii ñu bëgg a jaay ni kuy woote ak sëriñ sax fi ne saqal bopp yori weer di rey waaj ca télé ba ku ko ci def ku ne ne woo ci ndigal yéen mel na ni waa nasubu wala sinema wasala alal kufaar ñoom jaru xamaahum baynahum taraahum rukkahan sujada sallallahu alayhi wa sallam moo gaayam yi noonu lañ ko lay woon ruhamahum baynahum dañoo soppante rukkahan sujada fonk li yonente bi fonk muy di sujjóotal yàlla ak di ko rukkoo yabtaquuna fadlan min allah ku mu mën a doon ci yoon boo xëyee ba ngoon ngërëmul yàlla ngay sàkko waridwana moo tax dem na ba loolu doon def andi ben jeexatal ci ñom parce que sima simawuhum fi wujuhihim ko ci ne jak xamni ki min ahli janna ko jàkkaloo rek xamni ki mom ni suma su melni mom xam nga bu waji waxe ni ki di mod njaay ni nga waxe legi waaw roy ko baax a tax roy ku baax mën nañ laa bàyyi ca sanguinaire ya ngay aji mbag ko rom bu japp ni ceinture noire la première dan la bakagne koy weqanteel fexe ñu lay sukkale xaraamal koo gën foofu la affaire bi ne siimahuhum fi wujuuhihim min asari sujuud foofu la affaire bi ne ab murit sëñ day murite xool bi bàyyi laat xewee boppam mi murit yi sopp ko tax ñëpp wuti ko loolu murit war a mel ah ñu xëy xëy sëñ soyebu gaa yi def ay sëñ soyebu noonu la murit mën a mel maanaam boo roy da roy lu baax moo fi ne boo demee kër sëñ Modou Aminta Fall góor yàlla googu xoolal sëñ Modou Aminta ak doomam yi rek niñ mel xool niñ ñu yiwee xool niñ ñu sérieux ah man duñu doon sama sëñ mel nii man may mel ne neen lànk na nit day am référence te am ful la moo lay yóbbu fi nga ne waaye yii xew nii topp koo xam ne xamoo fu mu jëm xamoo fu mu xëyee dajeeg man ko saa yi foo jëm mu ne damay nga dem rek topp ca bu dee ba teer yóbbu foo xam ne waroo faa teer looy wax bu leen mel noonu yéen ñëpp maa ngi leen koy wax murit day am fulla am passeef bëgg boppam te fonk jaamu yàlla suñ borom maa ngi ci insisté nag ci loolu yéen ñëpp maa ngi leen koy wax gis nga fi ne lu jàpp nit ba bu jaamu yàlla jotee du ko baax man wóor na ma ni bis dana jot nga bàyyi loola jaamu yàlla def suñu suul la yow loolu loolu xam naa ko moo tax bu ngeen nekkee Thiès waxtu sa borom jotee jaamu leen ko su ngeen nekkee Dakar wax jaam sa borom jaamu leen ko ku leen looy def it neen sëñ bi ma ko digal démb man bi bi may génn sama kër bay romb jumaay Tuubaa maa ngi yàkkamti bi nga ne bunt passé buntu mujj ba ca kër Sëñ Abdou Lahad gaa yi ne allah akbar ma ne waa ji wàññikul mais nañ xool biir jumaa bañ duggee bay génn ku nekk jóg nekkuñ sax senegal sëñ bi ci télé bi laa la gis sëñ bi naa nga ko ne bëgg a mel ni yow te ci biir jumaa ji lañ génni koo ci àndal ko ne di nga ko lu tax mu xam ni nekk ak yàlla rek woo kon maa ngi leen koy wax ngeen fonk jaamu seen borom. damay yenn saa yi damay gis diggante deux heures trois heures ak cinq heures ñu nodd damay xool ci caméra yi daanaka Pape Dieng ak kenn baa ñaara fii ne te te boobu nit ñaa ngi ci biir nasru toog ëpp naa def fonk leen néeg yàlla bi su leen fekkee biir nasru kenn ci yéen defut lu gën jaamu sa borom amut ponk lu jaamu nii def ko ci millions yi ñu ko defee ba noppi nga sab bi bi ci kër gi bokkoo bokkoo jox ginnaaw loolu ñaaw na dama ko dégg muy jiite te bu jiite fu ko neex lay tàmbalee fu ko neex lay daal ni mu amee faratay noddu gi fi ne bu jiite jotee bu dee daal lii daal fi xores da ngay jàpp ni <laughs> kenn mus koo gis waaye ma ne bàyyi ma ne ma ne ma ne ma ne ginnaaw sa say tax a falu falul rek mën naa ñàkk nañ nañ fonkat farata yàlla ji te fonk ndigal mi te fonk waxtoom yi bu ñu ci defee lu ñu bëgg àdduna ak àlaxira suñu borom defal na ko kon loolu daal maa ngi koy fàttaliwaat ñëpp yiw ak jaamu yàlla ak soppanteek bëggante loo ci lay kar yi loolu mooy kàddu yi ma leen indil tey fa tabarkalla ndax tàmbali na leen ci àjjana ak neexit waak la fa la koy maye mooy lii ma mujj a wax nan fonk jaamu suñu borom te fonk ngoon ci liggéey ci jaamu yàlla la bokk waaye buy liggéey wut ak caag su ndaw def ci mbubb moo xam ne bu jaamu yàlla jote nga sensé ko moo gën ndax am na nu muy deme de soo amoon soxna su la bëgg soo war a añee ji da ngay sensibiliser boobu la ko dem yaakaar naa loolu soo amoon bureau bu ñu ne invité it nga war a faa defee nangam du bu bu bu doon Cheikh Mbacke bu mécanicien ma doo ko yóbbu lu tax nga di ko yóbbu tax bi la nobee doo ko fa yóbbu bi ngay lijjantee loolu mënta ne te kat. sol bu mu rafet cëpp bu fekkonte ne jaar na ci yàlla la jaaroo morom be ko wax de sinatukum fan mu inda masjidin yàlla nee na sol leen lu rafet nga saagar saagar di bëgg dem la déet bu rek jàkka tax may wax kon boko solul yàlla ko koy solal mosoon naa leen wax fii ni leen fii ne bu ma sol bo bala nga ne kaar yàlla nee na kaar ba man bañu ñu noppi julli ñaar rakk ni suñu borom jekk naa mun ma wax ma ne xaaral ma wan ko waaw man yàlla laay jëkkawoon sama bopp maa la ko wax gaa yi loolu dafa bokk ci sunna gis nga gis nga essayer rek booy booy déplacé wu te man ko bala nga génn sa kër nga julli ñaar rakk ne yàlla maa ngi maa ngi dem soo ne cëpp te sañ ko bala nga wax kenn julli ñaar rakk ne yàlla salaamaaleykum asina jàmm rek ngay am ana Serif nu may def nu may def saa yooyu wàcce bagage yi tubaab bu dee minuit da ngay fekk may naa fi la te maa yooyu wàcce na ci oto bi bala maa nuyu soxla si nuyu yàlla keneen ku nuyu mu xorom gisoo loolu Mohamed da ngaa rafetee fi ne julli gi mujj ci julli julli gi ci mujj benn ban la. man benn baat laa laaj yow ñaar nga ma tontu waa kay julli gi mu ci julli ñaata rakk la julli gi jëkk ci julli boo xëyee gan la ñaata rakk la lu tax yàlla organiser ko noonu mujje benn kañ jëkke ñaar kañ lu tax mu organisé ko noonu fop ben rakk ñuux ko ci guddi fop ñaar boo ne yeewu ni cëpp mun la jël da ngaa defe ni par hasard la journée bi ñaata waxtu la fukk ak ñaar journée bi suñ borom la xëyal bi jeex la def defan teg man dugg a tëddi bu ne ba waxtu yu jeex ba dara su pare nga mujjee ma dugg a tëdd seetloo ko man kenn képp laa defal ma benn képp doo ko dem gis nga boo nelawoo may la nga tëdd bu bët set ba nga yeewu bala nga wax ak kenn tàmbuleel ci man doo ko xëy ñaata la ñaar muy man ak ki nga ñi nga war a waxal nga xam ne boo yeewoo képp balaa dara xew Pape Dieng salaatu mina xayri naw mi nga ne yàlla salaamaaleykum ba noppi donc ne ke nga ne foo wax loxo muy ñaari rakk bu dee su lu tëdd mu jël benn mu yàlla képp nga tëdd xool ni ko yàlla organisé fii mënu woon a foog benn rakk ndax di mu yombee andi ko tisbaar yomb naa li jëntiwaale wala takkusaan waaye dañ defal lépp bu guddi gi jeex man képp maa fi des jox ma ko talem soo xëyee ginnaaw benn ñaari ci tegu ben nga jeexale tegal benen muy deux xoolal suñu borom organisé waaw loolu dañ ci wara jang du du du kese kese bu mu neen waaw ku la wax ni nañ defenti ni ma yow boo defee ni nenu nono ya jum na ngeen fonku jaamu yalla seen borom te nak gis nga bu len ko ndawaale ba ko ngi dey léegi fàllu mi ne ko del ne fi nit ñi ne tay ne ci li nit ñi ne moom laa ko doon wax léegi mbooloo mii nañ ciy toog di diglu li ñuy waxtu di ko jëfee te bokk ci waaye koo xam ne loo dugg génne ca yàlla lu yàlla dugg nga génn ci bis dana jot da xam ne sa yoon newu hmm? dugg lu ne génne ca yàlla lu yàlla dugg lu ne nga génn ci boo dajee yàlla di nga xam ni ëpp naa def kon maa ngi wax mag ndaw góor ak jigéen ñu ne nasru te yaakaar sañu asan tey seetaan seen bii fu nu mën a ne ndigal li mooy nañu xëy ci yàlla te di ci gont boole ko suñu mébét buñ ko seetaan am tey jii nañ am ëllëg kon kàddu yaa ngi noonu nañu fonk nag sikrullaahi toujours laa koy tëjee rek simin bii ñuy dugg nii xam nga maa ngi doon wax toujours allahumma laka alhamdu kama yanbaxi li jalali wajhika wali asami sultanika te kat fi mu ni waa biti sonn nañ ci lool ak ñu fekkewul jataay bii waaye waa jataay bii fi ne xool soo kee taxaw fee rek dajale juróom laaj leen ko di nga gis ko la dem jot ma koo jàng lay wax fi ne bu saa yoo jigee pees yaa ngi mujj yàpp man loolu lu ma yéem la parce que jigéen ko jigéen tax bëkk ci biti mooy jariñoo fi ne li ñu ni ñuy wax yàlla xam na loolu soxna bu mu xëyri daraam yàlla na wér nee na man boo waxee ba noppi man damay jàpp man ngay wax ak a baax yàlla ko yàlla yokk wér dañuy sonn ci yii di fopp seen alal yépp di ci participer ngir yàkkamti bisu àjjuma paase ma noppi ñu dem jëfe ji ko te la si na amono waamilo saaliyaat ñoom kaanat lahum jannatul firdawsi nusula ñi nga xam ne dañoo gëm ba noppi te boo waxee ba noppi ñuy jëfe nee suñ borom nee na firdawsi rek lañ dëkk te bu fa egg laa yëpp xoon an xaaxi wala amatuñ problème waaye ni gëm na mbir ba noppi te bu waxee doo ko jëfe boobu mooy musiba nañ ci yàlla musal na ngeen fonk jaamu seen borom ak di ko tudd bu nu jullee ci yonent bi salaahu salaam kalimatu laa ilaha illallah ba ma fi waxoon jamono yële démb dama koy liggéey ci oto bi bi may ñëw mut caam mi teg benn bandu bandu bandu sikar buñ doon def fii sax la fii nañ ko doon defee sama sëriñ baa ngi fii ci kër gi da ci am aal léegi laa nañ ko ci wutal sëñ Souleymane yàlla na wér waaye du wax ba yàgg maa maa ngi ciy yëg loo xam ni nan na ngeen ci dellu ti liggéey ko laa ilaha wax wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa wa huwa ala kulli shay'in xadir damay wax nii nañ ko daan def douze mille yaa xam noo ko seddalee waaye bi yoon nii nii nii dañuy bëgg rek na ko ñëpp di def chaque jour cent soixante six fois la matin cent six cent soixante six fois le soir loolu bariwut waaye li ci nekk di ci ay njariñ yàlla min bindi wow, rek ko xam hmm? waaw waaw hmm. gis nga gis nga gis nga baatu ndigal dafay leneen nit mën na maa romb nag def ko ci ay nangami junni waaye ñamal li ma wax nii rek yow loo ko nga koog moom ba semaine bi jeex ba xam loo yëg ci sa bopp saa yoo xëyee na nga ko liggéey su ngoonee nga def ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir boo noppee nasrun min allahi wa fathun qaribun wa basiril muminina borom nasrullahi diine jaa